بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي طالبي نيغي لين دي نويو دي لين سياري دي سياري تام بوكي جديب نيجي نيغي ني توك سيرين سالي مباكي موم سيرين فالو مو سيرين شوهيمو مو ام نيجي لو خامني ميغي بايكو سي شيخ محمد منتخا مباكي خليفه جنرال دي مريد جيم سي بوكي طالبي ييب كون ني بايكو مو جوتري نيجي دي نيكو سيرين بي سانتاني وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته waa kay suñ Lamine ñu ngi delloo nuyoo bi ak siyaar bu baax kon ñi ngi ko waxee rek sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ngi ñaan sunu borom mi nga xam ne moo am xam sañ man te kàttanam it di lu yëmul fenn mu bàyyil nu ko fi ba ak dundam doon kiimaan ci ñëpp ci barkeb Seexuna Ahmadul Xadim moonu woo léegi ci waxtu juróomi waxtu ci bis bii di yow ma asura Euh, jox ma ndigalul naa ñëw fii ci daare Hizbut Tarqiyyah ci jëwriñ ji Sëriñ Yuusu jottali ko ndigal lii ngir ñu saare ko ba mboolem mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp man cee jot te jariñoo ko ndax njariñul kese la bayit wi nga xam ne moom moom la sëriñ bi wax ne man zanna xayrallaahi nii aw yadur fa zaaka fit daarayni du kaddin wa dur la wax ne mu ngi jox ndigal mboolem taalibe Sëñ Tuubaa yëpp ñu saxal ko bis bu ne eh, gën jaa néew ñetti yoon ci suba gi ak ci ngoon gi ñetti yoon nag mooy lim bi ci gën a néew waaye ku ko weesu it amatul ab lim loo ci def rek baax na waaye daal ñu ngi ci jox ndigal mboole murit yëpp ak képp koo xam ne nangu nga laabire gu jóge ci moom ndax njariñul kese la lu jëm ci jullit yëpp man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fa daaka fi daareeni du kaddin wa dur xam naa jox na ci ndigal sëriñ Yuusu ñu bind ko mool ko te tasaare ko ba képp ku ko mën a jari bëgg a jariñoo rek jariñoo gi du la jafe bu ko defee bayit wi nag doonut bayit wu beru àndal waaye sëriñ bi jëmmi bayit wi rek la wax ne moom la joxe ndigal bi mu koy waxit dafa wax ne nañ jiital bismillahi rahmaani rahim wane it ne sëriñ bi moo ko wax moo ko waxal boppam ne xaalahoo seyxuna ahmad al xadim عليه اكبر رضوان الله تعالى baaxil القديم سو ko defee teg ci bayit wi bayit wi nag moom la joxe ndigal bis bu ne gën jaa néew ñetti yoon ku xas weesu ñett nag amatul ab lim ngoon gi noonu yàlla yàlla fayal sëriñ bi gën jëlum masa fay ku muy liggéeyloo te defal nu ak dégg aku topp aku jëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa